tëral yàlla yëkkati leen delloo si leen ci sunu mbooloo ñu koy sooxaale yàlla sempi ko ci seen yaram ba mu set yàlla na yàlla euh, barke liggéey yi kenn ku ci nekk métier mu ngay nekk di ca yëngu yàlla na nga ci yokk ba yëg yàlla na yàlla dimbali ñi xale yu toll ci liggéey tey nangoo dundal jàkka yi yàlla na yàlla sàmm leen dimbali leen jox leen liggéey yu barkeel te lu ñu am yàlla ñu ko yàlla defal ko xale yi jàngit te seen njàng yeggagul yàlla dimbali leen ba mu yegg jàmm te lañ cee séntu ci njariñ yàlla na leen ci yàlla defal lu kawe seen jot ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla yàlla jubale way jur yeeg seen i kër yeeg seen i soxna wujj ci kër yeeg doomu bàyyi ak dëkkandoo yi yàlla xool jul yépp nekk benn ci barke Seydina Muhammad su réew mi yàlla na fi yàlla saxal jàmm fitna yi ci ragal yàlla ko yàlla teg yàlla defal ñu jàmm te jubal si njiit jiite penc bi ak ñi jiite diine ji yàlla def ñoom maanu jub ragal yàlla ak yërmande ci askan wi ñu ànd ngir jariñ askan wi ba na ngir jariñoo askan wi yàlla ne yàlla sàmmali suñu diine ak suñu ngor ak suñu bokk yàlla bu mu xajam àdduna ak alaxira suñuy way dawlu yàlla ne yàlla yéegi lañ ca barsax seydna muhammad allahuma la tahrimna ajrahum wala taftinna baadahum yàlla na seen bàmmeel doon xaarukaay àjjana ci barke seydna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah, ñu nekkoon ba léegi rek ci justice ni mu baaxee ci réew dafa benn benn eh, Umar ibn al-As dafa wax am solo dafa ni laa sultaana illa bir rijaali nee na autorité boo koy jox nee jox ko jàmbaar nee autorité boo koy teg teg ko loxo góor yàlla nga koy teg nee waaye wala rijaala illa bil maal nee na jàmbaar góor yàlla nee na boo ko boo tegee ci moom autorité jox ko moyen nee waaye wala maala illa bil amara nee na euh, moyen nag mënoo koo am te créé wu développement nee na wala amara illa bil adli waaye na xam ne nag développement mënoo koo am te maandu amul kon foofu li nga ci jàngat mooy sookulu développement mooy maandu moo jox leen exemple Shurayh al-Qaadi moo tax suñu yi dañ ci waroon di jàngale Shurayh al-Qaadi ak ñoom Omar ibn Khattab ñoom Omar ibn al-As ñoom ñooñu la ñu war di jàngal suñu juge yi koy jàng euh, Shurayh al-Qaadi benn juge la woon ci jamono yi Omar ibn Khattab Omar ibn Khattab nekk amirul muminin Omar ibn Khattab benn fas ci benn arab yi maanaam arab mooy kaw-kaw bi mu jëndee fas wi ñu waxaale ba d'accord Omar ibnu Xataab fay waa ji jël fas wi dem ñu dem ba ci yàgg Omar ibnu Xataab du dox ba ci yàgg yi ñemm fas wi day soox mu yaa ah, fas wi de day soox xaaral ma delloo ji ko borom day di wëlbati ku dabe mu dabee waa ji ni ko saawaay fas wi nga jaay da day soox euh, dama bëgg a xàcc euh, arab yi ni ko waaw yow bi ma la koy jaay tu da ko xool ba mu doy la mu ne ko waaw mu ne ko est ce que ko woon nga ci soox mu ne ko déedéet mu ne ko kon man xaalis laa yor man xaalis laa moom yow fas na ko ma ne ko ah déet loolu lu ñu teqal koo de mu ne ko lu ñu teqal koo mu ne léegi dañ dem ci juge bi mu àtte ñu amirul muminin mooy wax ak benn arab yi euh, suñu président de la république mooy wax ak benn kaw kaw bu xamul dara waaw pour ngeen mën a dégg wax bi léegi shoreh al qaadi Eh, arabi bi ni ko léegi eh, Omar ni arabi bi tànn juge bu la neex nag ñu dem ci yow yaa koy tànn ñu dem fa mu àtte arabi bi ni ko man tànn naa sorexul xaasi parce que dégg naa xàmmewul buur ak baadoola juge la bu xàmmewul buur ak baadoola dañ dem ci moom man ko mari d'accord naa ci ñu dem ci sorexul xaasi Omar moom ni ne ñëw nekk président de la république moo ëpp dool sax président de la parce que moom am amirul muminin jullit yëpp koy jiitu moom nekkul ci continent nekkul ci dëkk adduna bi yëpp koy jiite eh, arab bi bi ñëw taxaw Chorexul Qaadi ni arab bi lu xew Chorexul Qaadi wax ko li affaire bi demee yëpp mu ne Omarul Xataab yow est-ce que bi ngay jënd fas yi nemmee woon nga ci sikk mu ne ko déedéet mu ne ko ce que sikk bi ci nekk mën nga ko cee delloo mu ne ko déedéet mu ne ko kon sa fas te bàyyi xaalis allahu akbar atte bi lu la atte waaye li ci gën a yéeme mooy Omar ibnu Xataab leewal ni la sultana illa bi rijal nee na pouvoir dëgg-dëgg autorité jox ko jàmbaar pour yàlla ku ragal yàlla ku ragal yàlla moo mën a nekk juge ku ragal yàlla moo mën a nekk njiitu réew affaire jàmbaar Omar dafa ni hal il qada illa hakada lii maa ngi soog a gis atte nag lii atte dëgg loolu Omar teg moom la ñu xaj dëgg gi de mu ne maa ngi gis soo gis atte dëgg lii atte qawlun faslu wax ju wér wa qadaa'un adlun ak atte bu maandu maa ngi yow xam nga shureexu qaadi benn juge la woon bi mel ni boo xam ne ci benn département nga nekkoon léegi mu affecté ko ci région mu nekk procureur loolu xoolal loolu yow nga nekk président juge bi ñëw atte ci sa défaveur nga yokk garaatam sëñ bi lii mooy maanaam ay waaye lii kañ lañ koy am yàlla ñu ko yàlla defal lii buñ ko amoon suñu réew mi dem si ñoom yàlla ñu ko yàlla defal nag wasalaamaaleykum wa rahmatullah